tey sénégalais yi bi ñu wootee ni ñu wotee war nañoo jéem a xam ban message la ñuy yónnee xool lan mooy seen préoccupation tey ginnaaw bi nga xamee ne renouvelé naa bien sûr euh, sama félicitation euh, au président élu Bassirou Diomaye Faye ndax nun ci suñu coalition def nañ ko déjà traito tôt le dès dès le dimanche quand on coalition a Aly Ngouille très euh, sorti deux communiqués bu njëkk bi mooy bi tendance bi wanee ne euh, il gagne dans le département de Linguère donc mu génne ñu génne un communiqué pour féliciter beneen bi mooy bi nga xamee ne ay genre tergiversation mu ngi mel ni mu ngi bëggoon a am mhm. candidat bi euh, président Aly Ngouille Ndiaye defaat beneen communiqué. Mhm. pour alerter et attirer l'attention sur le fait que nit ñi dañoo obli obligation respecter. Mhm. le le le suffrage des Sénégalais. Mhm. et que les tendances étaient nettes et claires. et qu'il pas à à à tergiverser pour envisager éventuellement d'autres postures. donc tout ça euh, ça montre que nit ñi dañuy analyser jàngat xool réellement sénégalais lan la ñu wax. te boo nekkee un démocrate boo ko xoolee da nga ko war a nangu te accompagner ko léegi nag tey il faut que ñu xam sénégalais yi lan mooy seen préoccupation ba tax ñu wootee nii ñu wootee jàpp naa ne c'est pas quelque chose de symbolique du ay symbole très sincèrement mais ay fait yoo xam ne nit ñi dañ koo dund jàpp ne yooyu waratu fee amaat te jàpp nañu ne pour plus de sécurité li gën a wóor mooy buñ fi teg nañu teg koo xam ne gëm nañu ne du laale dara ak li fi nekkoon indi ce qu'on peut appeler un vote utile loolu. yéen dund ngeen vote utile bi de. tout tout le monde. parce que et, et, et, tout le monde parce que 0,47 pour cent tout le monde la la dundul ko te nit ñi te te nit ñi nit ñi dañ ko sentir bien avant. ah oui yow sentiroon nga ko. non non non c'est-à-dire xam nga aussi tu discutes euh, xam nga boo nekkee ci biir sénégalais yi. Mhm. da nga dem ci mbooloo di wax ñu wax la ne xam nañu ne. candidat yi fi nekk am na fi ñoo xam ne am nañu profil bu wóor. mais situation Sénégal toll na foo xam ne bu ñu pas bu ñu tasaaree carte yi deuxième tour mën naa am te bu deuxième tour amee. on peut on peut on peut euh, présager de de de des positions des uns et des autres parce que deuxième tour bu amoon kii mën naa ñëw jàppale kee kee jàppale kee affaire yi jaxasoo donc les gens ont plutôt préféré faire un vote utile et booy def vote utile aussi da ngay xool bu fekkee da nga ne on est contre le système. te jafe-jafe yi ak problème yépp système bi par exemple moo ñu ko indil ba sénégalais yi gëm ko. da ngay xool ki gën a. da ngay xool ki gën a ki nga jàpp ne moo gën a wóor. c'est ça en réalité. ki gën a opposé wu. ki waaw. à l'extrême waaw bu ko defee bu ko defee def lay wóor ne lii moom dana fi jóge te bu fi jógee jàpp nañu ne dootul dellu si. Hmm. c'est la raison pour laquelle boo xoolee te li indi loolu aussi. ay ay mbir yu tegaloo la depuis un certain nombre d'années boo xoolee par exemple euh, euh dans un premier temps euh, Fall wax na fi léegi le fait que euh, Ablaye Wade ait voulu faire un, un troisième mandat mais le fait que Macky Sall waxul waa waxul déet ci affaire troisième mandat tax na dans un beaucoup de Sénégalais gëmoon nañu ne kii buñ ko bàyyee ci troisième mandat la jëm kooku c'était une une raison pour lui faire barrage boo jëlee aussi par exemple ni ñu yoree réew mi nga xam ne nit ñi dañu sant dañu am sentiment que li wax li wax priorité nga xam ne mooy farata nga xam ne dafa mel ni état bi xamul farata xàmmewul farata ak sunna ba ni mu war a accorder priorité aux priorités defu ko sénégalais yi gisuñu seen bopp ci ni nga xam ne noonu lañ yore réew mi mën nañu def ay investissement yu luur ay infrastructure def fii stade def fii lii def fee lële mais sénégalais yi dañuy jàpp ne en définitive li boo ko xoolee ak jafe-jafe ñuy dund presque ak xeetu yàq la donc phénomène de rejet yooyu la ñu tegale ñu ñëw aussi violer un peu les les principes fondamentaux d'une démocratie parce que ab président bu demee ba wax te jëf ne moom il va réduire toute l'opposition dans sa plus simple expression museler ni ko Fall waxee léegi mu dem ba nga xam ne par exemple benn am na baat boo xam ne sax boo ko réclamé woo rek mën na laa yóbbu kaso donc ce sont des faits qui se sont yoo xam ne dañoo tegaloo tegaloo tegaloo Sénégalais yi dem ba xam ne lii jëmul kër te itam. mooy war nañoo moytu changement boo xam ne peut-être euh, changement de personne lay doon ñu xool ñaar ñi nga xam ne peut-être ñoo gën a jàkkaarloo ñoo gën a nekk en position euh, de combat ñu jàpp ne kii ginnaaw soxla wuñ ko xëy na bu ñu demee ca kële danañu may li nga xam ne moom la ñu soxla ci réew mi. Mhm. li ci ba li ci yeneen yeneen euh, dysfonctionnement anomalie yi da ngay xool réew moo xam ne dem nga ba sa yaakaar muy ndaw ñi. dem nañoo dem a dem ba amatuñu benn yaakaar ci seenam réew ba nga xam ne nit ki <coughs> mën naa jàpp ne tey di dem ci géej gi te mu wóor la ne mën nga faa des daani ki du la indil benn benn njàqare du du du la taxa du rien kenn mënulaa laa xut ba kenn mënu laa tiital ba nga bàyyi ko mhm. xam nga kooku foofu la yaakaar bu jeex mën a yem am réew nag bu yeggee foofa ba nga xam ne yaakaar amatul dara amatul da nga naan moi je n'ai plus rien à perdre amatuma lenn lu ma mën a ñàkk parce que ginnaaw aw ma dara te ñii bu tant que ñu ngi fi du ma ma am dara à partir ce moment amatuma lu may ñàkk dangay ngay daal di jël position yoo xam ne moo lay may nga am le minimum de chance pour que changement yi nga soxla nga am ko